diggante dispersé dispersé nañ ko. Mhm. Euh, fii tamit ñu barricade mbokk yi ah, euh, tuuru euh, place la nation li tax a jóg nag mooy le président sortant Macky Sall hold def putsch électoral bëgg. reporté élection yi te tegu ko ci yoon loolu nag la ñëpp taxaw pour ñu daj opposition comme société civile jàngalekat comme étudiant ay religieux comme ay homme d'affaires gis ngeen moom moyen bi foo jaar rek ñu fees dell ak takk der pour aussi souveraineté appartient au peuple ma dëgg-dëgg ñaari minute rek la ku nekk ci ñun am ci sa souveraineté bi ñuy wax ne appartient moo appartenir ko ndax li ci des yëpp da gis ne danga koy dénk benn politique mu représenté la wala ay politique yu représenté la loolu nag ñu bëgg ñoo xaj la peuple bi taxaw pouvoir la pour ku nekk taxaw indiñé wu naxarlu waaye def li nga mën pour que élection yi nga xam ne ñoo war a am le vingt cinq février ñu tenir leen comme ni ko constitution bi waxee jamono yi xam ngeen ne attaqué nañu leen ko mën nga wane dañoo corrompre ñenn ci juge muy wax yoo xam ne ay accusation gratuite la amul benn preuve wala gis wala début de preuve yu ñu teg ci table te bu ko amoon it war na tax ñu fomm élection yi loolu nag may na ku nekk tey bu fekkoon ne kumba woon nga it am nga gis-gis lu sit tey ne ñoo bàyyi pouvoir bi parce que ko yéene waaye dafa mel ni dañ koo nar a def lu ñuy doonante moom ma dynastie ay sàll lay doon wala dynastie wàdd sàll wala dynastie libéral wala boog dañuy mujj sax ñu càlleen li nga xamee ne dëkk yi pour moom dafay jël dëkk ba jox ko turam mbaa ko nangu sénégalais yi nag wax dëgg yàlla ëpp leen sago kenn dàqu leen a muñ waaye sago bi muñ gi nag bu war a ànd ak taxawaay taxawaay bu républicain nga ànd ak yar ànd ak teg waaye ànd ak pas-pas